je prends l'entière responsabilité de le dire dans, dans, dans, dans une télévision. Moi, j'ai dressé le parcours de Ndeye Ndiaye. Parce que dans ce dossier criminel, pour nous comprendre ce qu'on il faut dresser les, dossiers. tu dresses les profils. Comment est Ndeye Ndiaye Elle est née à Boy, côté drame escale, où elle a fait ses études, qui sont arrêtées en classe de sem 2 les de les cas d'André Ndiaye, Marie Ondemé, celle elle a été la femme d'Ibrahim Sen. Ibrahim Sen n'est que vendeur librairie papeterie. doon dem ay Dubaï ak ay Arabie Saoudite ñëw ñu ko yóbbante or muy dem d'ailleurs photo bi mu wane dafa dem Màkka waa ji moo ko yóbbu woon Màkka Arabie Saoudite du aj dafa dem Arabie Saoudite ñëwaat ñu jëkkër ji wutal ko nekk fii nu mu tudd sax Cambérène 2 fa la fa la amoon kër Ibrahima Sène il a elle a divorcé en 2015 Avec la mais pour des délits yoo xamante ni teel laa nekk du ma ko wax parce que jigéen 2016 mu dem deuk HLM Grand Yoff fekk ne magam buñu wax Biige Ndiaye mi ngi nek Ngor Almadi am fa salon de massage bige, moko récupérer au moment où Ndeye Khadi mais ça donnait à toutes sortes d'exactions vois le moral la la la femme l'a récupéré Ndeye Khadi était à Ngor Almadi salon Biige ba mu jugee fofu ci le ubi fi cité biyaa gi ben benn kii elle payait 15000 francs par jour loolu fay mi ngi nek ci kër gu wex gogu am Samsung. bu ngeen demee boo rombee onomo boo rombee non mais na dem plainte bu xëyee suba teel na dem plainte tamit lu garaaw la non bu xëyee suba laa wax na dem plainte ji je te dis que ni ku ñuy wooyee Pa Thiandoum moo ko loué woon studio muy fay 15000 francs par jour ci boutique Samsung bi fu mu nekk appartement bi ko tiim boo rombee ono onomo fa la jógee ñëw côté pharmacie xandaar gi te da jëkkoon am fa la jëkkoon am euh, salon de massage gis benn waaye mu lebal ko cinquante mille Elle lui a remis sa pièce d'identité et une, lettre d'engagement. Faut le juger Ubi Nord Vous avez entendu, on parle de Kia, Kia, Kia, Kia, Kia. Hmm. Est-ce qu'on parle mm. Sunko, Hamnoku, Kia ah bon? Il n'a qu'à prendre ses responsabilités. Moi, en 2019, vous avez entendu Mambay Nyang Tok nyopne. 2019, Théon Nendoumane a enfoncé Ousmane Sonko. Hmm, C'était par rapport à ces, à ces, à ces, exercices peu orthodoxes. Il me donne des la, la là. Et en ce moment, Kia avait moins de 17 ans. Hmm. Lui, il payait

en tout cas la fiabilité de ce que je suis en train de dire. Mm-hmm. aucun membre de Pastef ne le démentira. léegi ñu ñëwaat tuuti. te nga Ndeye Khady Ndiaye. Mm-hmm. a deux frères. Mm-hmm. Ousmane Ndiaye ak Mbaye Ndiaye. d'accord Mbaye c'est un vendeur de véhicules. Ousmane Ndiaye moom moom kër gi nekk kër gi ñoom euh, Babacar Kewulo di wax ak ñom nu tuddu sax ak ñom euh, ak ñom euh, Ousmane Tunkara. au troisième étage fi Ndeye Khady mujj ba mu taxo xandaar fi mu jëm de déloger déloger là où on parle de Fatou. bi mu réeral téléphone am. Fatou bi a wax enquête tout ça. donc dans cette affaire là au delà de Ndaye Ndiaye Ousmane Sonko ak mm-hmm. la justice a entendu plus de cinq.